Nous, les Sénégalais, nous aimons Marseille, tout simplement parce que nous nous identifions parfois à leurs joueurs. Euh, on se souvient de Boubacar Sarlocote, Ablaï Diallo, plus récemment Momo Dugnan. Actuellement, il y a deux joueurs qui sont dans l'effectif euh, des pros. Il s'agit euh, de Pop Daudembo et Leitingai. Euh, c'est vrai qu'ils n'arrivent pas encore à s'imposer pour différentes raisons, des blessures ou encore des prêts à d'autres clubs, mais ils ont des ambitions. Raison pour laquelle je vous propose de les découvrir dans la vie et dans le club à la rencontre de Pape et Pape Daudembo. gisee euh, ñu ngi fii Kër Leyti Ndiaye di ko jaajëfal ci dalal bi parce que ak bu vraiment on va dire que c'est un accueil chaleureux et euh, donc du coup on va profiter justement de cette occasion pour euh, parler avec lui mieux le connaître évidemment même si on en connaît un bout et c'est aussi de discuter euh, football bon déjà gis nañu que tu es dans une ambiance familiale assez chaleureuse. Il y a une certaine TFM, fait encore <laughs> plaisir. Et j'imagine que tu regardes aussi pas mal d'émissions sport euh, sur une donc ñu bàyyi la nga nuyoog sénégalais ah avec plaisir donc euh, salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi nuyu mbokku sénégalais yëpp. Mhm. ben voilà. damay wax mbokk sénégalais yëpp parce que CFM euh, c'est vrai que fépp lañ koy seetaan ci monde bi. donc euh, voilà toi tamit yow comme ni ma la ko waxee yow da nga nekk euh, journaliste boo xam ne bon. voilà am nañu estime bu bë bu bëri si yow. Mm. parce que voilà tu da ngay véhiculer bu baax daal image journaliste. Mm. donc euh, voilà c' est un grand plaisir ma lay recevoir. Euh, tout à fait maa ngi soog comprendre lu tax léegi doo génnoon béy xamoo Marseille. waaw est ce que fii dafa nugg et puis madame est derrière pour préparer de bons plats quoi en fait. waaw waaw <laughs> vrai que. man euh, voilà je suis pas quelqu'un boo xam ne dama bëgg di bouger lu bëri. Mm-hmm. donc euh, surtout que boo nekkee dëkk boo xam ne du sa dëkk donc euh, c'est pas parce que intégré wu ñu nag quoi. donc intégré nañ bu baax mais bon dañuy xam lu fi andi tamit. donc euh, bu ñu demee liggéey ba pare. Mhm. waaye ñibbis si kër gi seetaan Télé Sénégal ça fait du bien quoi. ok d'autant plus que le footballeur professionnel a quand même besoin de récupération c'est le haut niveau. ce qui a quand même beaucoup d'énergie donc euh, récupérer aussi daf si am solo. si si daf si am solo bu baax daf si am solo football euh, comme li nga wax sacrifice bu bëri la. Mhm. donc euh, dañuy def le maximum pour pour performance performance mooy loolu mooy récupération entraînement bu bu war. Mhm. si loolu daal la ñuy gën a consacré wu bu ñu demee entrainement dellu si si kër gi quoi. alors euh, Leyti euh, peut-être pour euh, ñi la xamul je pense que ni quand même tu as fait un peu armes au Sénégal. mais depuis 2004 quand même ya xaw na yaa ngi yaa ngi Marseille. nan nga ñëwee Marseille en fait. Marseille maa ngi fi ñëw 2004. Mm -hmm. euh, Jean-Philippe Durand moo doon adjoint bi à l'époque donc moom moo ñëwoon euh, Louga. Mhm. Mhm. période boobu maa ngi woon Louga avant ma ñëw fii. Mhm. donc ñëw seetaan si benn match euh, euh, Louga qui joue donc gis ma fa après après match bi ñu waxtaan. moo si li ma wax nekk intéressé naa leen. pour mu continuer si li ma doon donc ça s'est fait comme ça. très bien donc da daal tu lui as tapé dans l'œil on va dire. Mais alors, ce, ce, ce, poste, tu joues défenseur central, je pense, ou euh, plutôt sur les côtés Non, depuis que je suis là, j'ai commencé à jouer défenseur central. Mais bon, okay. c'est vrai que c'est mon, mon, mon formation, milieu de terrain là, au def. ok même ñoom bu ñu may jël si bu ñu jël si loin pour ma ñëwoon pour ma ñëwoon remplacer la la woon. ok donc ku ñëw jouer milieu terrain la woon quoi. ok mais bon après mu ñëwee fii ak sama gabarit ak loolu. ok ñoom excuse boobu lañ ma jox quoi moo tax ah, ñu delloo ma si ginnaaw. mais est-ce que remplacement bi yomboon na le fait que nga tàmmoon di jouer milieu de après ñu. est-ce que ça a été facile. non c'est ay repères la lay am comme li nga wax donc. Euh, la fallu du temps nag c'est vrai que début bi ba may soo commencé noonu amoon naa mm. problème mu mm-hmm. problème yu si si côté boobu mm. mais bon à l'époque amoon naa tamit coach boo xam ne ben daf ma jege woon di waxtaan ak man souvent. donc loolu dimbali na ma si si li tax ma gën a. Hmm. am ay repères foofu yu gaaw nga gën a a progresser daal. voilà bon euh, Leyti c' est vrai 2004 ba léegi euh, yàgg na on attend toujours peut-être le le déclic xaw ma noonu laa ko mën waxee. malheureusement da nga am benn xarit boo xam ne du xarit mooy blessure. donc tu as une carrière depuis là jalonnée par des blessures est-ce que mën nga si dellu si. waaw ben ñoom ak football ñoo ànd. Mm-hmm. bon man euh, de ma part xam naa si am naa si lu bëri quoi. Mm-hmm. donc euh, dama dama koy jël rek comme loo xam ne si destin bi la bokk. Mm-hmm. donc ba mu ñëwee fii laa commencé am euh, soucis yu mel noonu. d'accord ay durée yu yàgg. par exemple huit mois neuf mois parfois même une saison gâchée. voilà ouais. tu as connu des trucs quand même assez en fait. ouais ouais je me fait ba may soog a yegg si fii laa. laa am euh, ligament croisé euh, genou gauche. Mhm. au bout de quatre mois. Okay. donc euh, loolu éloigné ma terrain six mois. Mhm. après ba ma dellu see voilà ma am temps pour remettre ak yooyu noonu. donc manqué ren mu ñu abale ma Créteil mhm. donc ma def six mois foofu yoo xam ne ça s'est pas mal passé ba ma dellu see léegi ñu abale ma waat euh, Ajaccio euh, non Strasbourg Strasbourg waaye ba ma demee Strasbourg tamit def fa cinq jours au bout de cinq jours ma defaat ligament croisé côté droit donc euh, voilà après affaire yi enchaîné wu quoi mhm, mhm. donc le temps nag may dellu si waat pour amaat rythme bi loolu moo moo xawoon yàgg c'est vrai que blessure yi Euh, sûrement am na lu mu wàññi mais est-ce que mën nañu jàpp ni loolu rek mooy excuse bi peut-être lu tax confirmé woo Marseille parce que quand même jot nga dem ci yeneen club Ajaccio comme ni nga ko waxee Créteil. bon Strasbourg c'est vrai que ça a été très court cinq jours. mais est-ce que amul leneen lu expliquer aussi le fait que yow euh, peut-être t'arrives pas à t'imposer au sein de l'Olympique de Marseille. ben man j'arrive pas à m'imposer loolu laa ko mën a du excuse quoi mais mm-hmm. mooy réalité bi mooy nekk blessure yi. yow daal gëm nga ni loolu la. ben loolu la sax parce que euh, chaque fois buñ may buñ may andi. Mhm. ben day tombeek euh, day tombeek moment boo xam ne donc euh, damay wane loo xam ne. mun naa ñëw quoi. mais bon su ma ñëwee damay am euh, damay am gàllankoor tout le temps boo xam ne mooy blessure. te boo blessé ñëpp xam nañ ne le temps ngay ñëwaat. xam nga mhm. day fekk euh, effectif bi di tourné waat. donc fa nga xaaraat euh, ba train bi rombaat quoi nga jëlaat ko. très bien d'ailleurs bi si mujj mooy je crois bii nii yàggul xaw ma ñaata weer la tu vas me dire mais Europa League. donc nga ñëw joué. ñu titularisé la nga ñëw blessé. au bout de 40 minutes waaw au bout ben il y a un mois un mois et demi je veux dire. Mm -hmm. donc euh, voilà ba coach bi ñu tamit pareil début saison bi dañu am discussion man ak moom mu ne ma nekk ben il comptait sur moi. Mm -hmm. ben match préparation yeeg yëpp ça s'était pas mal passé. Mm -hmm. et voilà ba saison bi di waaye commencé la am problème mu tendon. ok en fait tendon boo bu ma sonaloon la depuis daaw quoi moo yàq sama saison daaw Ajaccio. d'accord ba dirigeant yi xoolee nag ne nekk fale ñu foog ñu opérer ko quoi. moom rek moom moo doon solution. solution waaw. donc opération boobu laa am mu mu yàq début saison bi quoi. Mm. donc euh, ba mu ñëwaatee. si la si la am chance su coach bi titulariser ma. contre Fenerbahçe aussi. waaw Fenerbahçe waaw. voilà ma defaat 40 euh, minutes. Eh am claquage euh, derrière la cuisse. mun nga xalaat ni que peut-être au tu vas peut-être changer de club def benn sorte de prêt pour avoir de la compétition c'est une, une option. non en fait non là pour le moment c'est pas c'est pas possible en fait. Mm. comme benn saison moom ma dese benn année moom moom fi dese sous contrat. ok donc euh, mënuñu ma avalé six mois yi quoi. ok très bien donc tu es là euh, quoi. je suis là donc tu vas devoir te battre et gagner ta place. mais toujours toujours <laughs> ñun Ndiaye la ñu sant xamuñu lu dul euh, lu dul dem. donc voilà dañuy jeex wala ñu. ñu fande mais boo dañuy dem rek quoi. mais léegi ci say référence si football yow tay booy football euh, ñan ñoo tax ak euh, peut-être ñi nga xam ne vraiment marqué nañ la si football aussi bien national qu'international. ben je dirais honnêtement. Mm. génération 2002. Okay. loolu loolu lu lu dëggu la quoi. Mm. man tey bu ma toogee fii di. bu ma demee ba am euh, amuuru football noonu. Mm. ñoom ñoo tax quoi ñoom ñoo tax nag. ah Sénégal euh, ben ñu reconnaître ñu si monde bi. Mm-hmm. donc euh, voilà ay joueurs yoo xam ne comme ay Salif Diao moo doon sama idole. donc euh, voilà ay joueurs yu mel noonu tax nañu. ñun ñu gën a bëgg football quoi. Mm-hmm. bien mais ci wàllu Sénégal justement la ñuy desandi gis nga ni que temps yi bon am nañu ay tolof tolof yu bëri. Euh, CAN 2013 bi duñ ci bokk Bata mu ngi nii on a été éliminé au premier tour euh, donc yow boo gisee yow yaa fi Pape Daouda le potentiel sénégalais il est énorme et pourtant le football sénégalais en tout cas au plan euh, de l'équipe nationale n'avance pas yow loolu nan nga koy jàngatee waaw c'est vrai que c'est dur à encaisser ah boo xoolee suñu suñu ay potentialité la ñu wax mm-hmm. joueurs yi ñu am ñu nekk ci tanière bi donc dinga nga am du mal à comprendre lan moo tax du ñu bokk si yenn compétition yi di ñëw quoi. Mhm. mais bon damay wax nekk football tamit dafa nekk sport boo xam ne mais dafa am dafa soxla stable quoi. Mhm, mhm. en euh, fu mu nekk nii dañuy je vois ne dañuy dañuy reprendre à zéro quoi. ok ñu du bàyyi temps dara mu jël quoi. en fait bi am na groupe bu baax bu fi nekk am na ñu fi nekk ñuy ñuy gérer. donc pour man nañ leen bàyyi donc euh, ñu ñu def seen liggéey quoi ku nekk def sa liggéey bi war. et j'espère que résultat yi bu ñëwee rek après lépp dina enchaîner quoi parce que xam nga woo football moom mooy loolu bu résultat yi amee la donc lépp lépp dañuy kontaan quoi ah, justement euh, Leyti yow est-ce que est-ce que mos nañ la woo équipe nationale ak ban jamono la woon si si mos naa mos naa comme li mu la wax rek mooy nekk voilà man blessure yi ñoom ñoo ma freiné si si lépp lu may def. Mm-hmm. benn sélection la am ak A bi. Mm-hmm. ma dem jour bi ñu war a def euh, déplacement au Congo. Mm-hmm. si la am. Euh, euh, luxation de l'épaule quoi. donc euh, voilà. mooy temps yi ñuy def éliminatoire Coupe d'Afrique yi war a dem Lubumbashi suñu premier match contre RDC. voilà voilà c'est ça d'accord mais petite catégorie jot nga fa jaar si si am na waaw am na ay ak espoir voilà après. c'est que euh, li ma bëgg a dëgg daal amaguma ko quoi mooy bokk si tanière bi wane fa li mu mën ko rêve la daal rêve la rêve la boo xam ne gëm naa ne dina réaliser wu mm. parce que parce que maa ngi def chaque jour li war pour euh, pour mu réaliser wu et dina ñëw ko gëm naa ne dina ñëw incha allah. d' comme ni mu la ko waxee euh, bon ñu ngi yegg si ci fin wu entretien bi ñu bàyyi la nga euh, mu yokk Sénégalais yi surtout sa mbokk yi. et puis aussi euh, ñu ñaanal la peut-être de toute façon li ñu lay war a a ñaanal mooy blessure yi yàlla na ko yàlla arrêté fii. waaw waaw amiin amiin yaa rabbi <laughs> amiin. donc ñu bàyyi la wax ak Sénégalais ak sa mbokk. waaw non maa ngi leen di nuyu waa Sénégal di nuyu sama mbokk sama mbokk yi fa nekk yëpp Jolof. di nuyu waa SICAP Liberté 3 foofu nga xam ne foofu laa màggee xam na yaroo foofu donc euh, après voilà Sénégal moom ñëpp bokk bokk ndey bokk baay quoi c'est vrai que boo boo xoolee boo xoolee bu baax euh, fi mu nee nii mën a yow mii di waxtaan sax bu ñu seetee bu baax am nañ ay mm. amis en commun quoi mm, donc ñun ñëpp benn la mm. ñu ñu ñu yénente jàmm rek di ñaan yàlla def jàmm Sénégal te te di leen wax ne li si kanam rawali bët quoi. Mm. pour man bon échec yi yëpp am ci ginnaaw. Mm. ay ay échec luy waroon ñëw mais bon lii ñëw mooy dàq incha allah. Dombo, euh, des pensionnaires de l'Olympique de Marseille, sénégalais également, euh, donc euh, qui évoluent à l'Olympique de Marseille. Ben, Marseille, vous, euh, apparemment, ça remonte à quelques années. Vous avez commencé par le centre de formation. Bonsoir, Pape. Bonsoir, Mam. Ben, Oui, en fait, euh, je suis arrivé à Marseille euh, en 2006 au centre de formation. Donc j'ai été formé là, j'ai mm -hmm. fait deux ans de formation, puis j'ai signé mon premier contrat professionnel en 2008. Très bien. Comment vous avez euh, atterri un peu au centre de formation ouais, Disons que c'est allé un peu vite pour moi. Mm -hmm. bah, je merci, parce que j'étais à Dakar dans un centre de formation, le centre de formation de Pape Ousmane Sek. J'ai été formé là-bas, j'ai fait là-bas toute ma petite catégorie. Mm -hmm. Et après son décès, peu à son âme, donc euh, je suis parti dans un autre centre de formation qui a amené pas mal de joueurs à Marseille. Mm -hmm. Donc je suis allé là-bas euh, au bout de six mois. <clears throat> Après, c'est comme ça qu'on avait, euh, on avait organisé des essais là-bas. Ouais. Il y avait un recruteur de Marseille qui était présent. et il m'a vu là-bas et après c'est comme ça que je suis venu à Marseille. J'ai signé mon contrat à Dakar et après trois mois après je suis venu à Marseille. D'accord. Pour vous c'était un rêve qui se réalisait d'ailleurs, j'imagine, non Oui, c'était un rêve bien sûr, bien sûr, parce que déjà en étant petit, euh, en voyant euh, tous les matchs euh, à la télé, tous les matchs de Marseille, tout ça. En plus c'était mon équipe quand j'étais petit. Mmh. Donc euh, oui, oui, c'était un rêve pour moi de surtout de venir et de jouer et de porter ce maillot. Mmh. Donc, euh, je remercie le bon Dieu d'avoir réalisé ce rêve. Très bien. Donc, 2006-2008, euh, centre de formation, je pense. Mm -hmm. 2008, vous signez votre contrat pro. Et on va dire que là, les choses commencent à se corser parce qu'il faut gagner une place de titulaire. Et quatre ans après, euh, vous êtes encore en train de vous battre pour cela. Oui, de toute façon, depuis le début, depuis mon arrivée, ça n'a jamais été facile. Mm -hmm. Comme on dit, après, je suis arrivé ici, je me suis battu pour euh, signer un professionnel, tout ça. Et après, en 2008, j'ai signé mon premier contrat professionnel. en étant avec le groupe professionnel. Ben, j'ai pas joué beaucoup de matchs non plus. Après, on m'avait prêté à Cannes mm -hmm. en 2009, ouais. où j'ai fait, euh, ben, j'ai fait six mois là-bas mm -hmm. et j'ai joué et ça a été une, une bonne saison pour moi. Mm -hmm. Au retour en 2010, j'ai voulu rester pour essayer aussi de jouer à côté des grands joueurs comme euh, des Lucho Gonzalez et autres, et mhm. Gabriel Enzo, tout ça. Ben, je pense que j'ai beaucoup appris à leur côté où on a gagné pas mal de titres, tout ça. Tout à fait. Donc ça a été une année bénéfique. en 2010. En 2010. Voilà. Vous avez Donc, été champion de France. C'est ça. Okay. Donc ça a été une année bénéfique pour moi, où j'ai beaucoup appris. Après, en 2011, j'ai voulu aller euh, dans un autre club pour avoir plus de temps de jeu. Mm -hmm. Parce que aussi c'est bien beau d'être à Marseille, mais aussi si tu es à Marseille alors que tu fais pas beaucoup de matchs aussi, ça. parce que sans le rythme de la compétition aussi, donc ça ça sert à rien d'une mm -hmm. part. Donc où, J'ai voulu aller jouer un peu et je suis allé à Ajaccio. Mmh. On m'avait prêté à Ajaccio. Bah, ça n'a pas marché comme j'ai voulu, mais pour autre chose, rien à voir avec le côté sportif. Des problèmes de relation peut-être Ouais, c'était mmh. des problèmes de relation. Après, c'est quelque chose qui est derrière moi maintenant. Je ne veux pas en revenir. Mmh. C'est quelque chose euh, qui n'a rien à voir avec le football ou quoi que ce soit. Mmh. Et après, j'ai fait 5 mois encore à Cannes, où j'ai joué encore pas mal. Que, pas mal de matchs. Mm -hmm. L'année dernière, on m'a prêté encore à Belgique. Tout ça, c'est parce que moi, c'est moi qui voulais partir parce que je voulais jouer. Tout à fait. Donc, au, arrivé en Belgique, j'ai commencé à jouer. Mm -hmm. Et après, j'ai eu une grave blessure. J'ai été opéré et je suis resté 9 mois sans jouer. Et cette année, je suis revenu à l'Olympique de Marseille et pour l'instant, ça se passe bien. Très bien. Vous cherchez toujours à gagner une place de titulaire. Alors, on rappelle que vous, votre poste de prédilection, enfin, en tout cas, votre poste de formation, c'est défenseur. Mais vous pouvez également euh, évoluer au milieu de terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que c'est la concurrence hein, au sein de l'Olympique de Marseille qui vous empêche un peu d'éclore, en fait Non, mais je suis conscient que je suis dans un grand club. Après, la concurrence, il y en a partout. Donc, euh, non, ça ne me fait pas peur. C'est pas que j'ai peur d'affronter cela, mais le problème, c'est que en étant jeune, en étant, et quand on m'a formé, on m'a formé ici, je veux dire, en fait. Donc, du coup, avec tous les grands joueurs qui étaient ici, j'étais là pour être soit doublure, et moi, je voulais jouer. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est de jouer, être, euh, être en forme, quoi. Donc euh, pour moi, le mieux, c'était de partir pour essayer de trouver du temps de jeu. Après, j'ai pas eu trop de chance. par rapport à tous ces prêts. Mm. Mais comme je dis, je lâche pas, je continue à travailler, à bosser. Et je sais qu'à un moment donné, ça va venir. Et euh, j'imagine que bon, euh, cette lenteur euh, par rapport au championnat français a forcément des répercussions par rapport à peut-être un appel en équipe nationale du Sénégal. Vous avez fait les petites catégories. Euh, donc je pense euh, la sélection olympique hein, en 2007 et mm. depuis lors euh, je pense que vous attendez aussi votre premier appel en sélection A. Hein. Ouais, évidemment. Mais comme je dis, de toute façon, je remercie le bon Dieu d'avoir fait déjà toutes les catégories, en cadet, junior, euh, espoir. Mm -hmm. Après maintenant, il reste la sélection A. Mais je ne suis pas pressé, comme je dis. Ça va venir. Mm. Je sais que maintenant, là, ce qu'il faut faire, c'est de travailler, c'est d'être bon en club d'abord. Mm. Ouais, et de jouer, qu'on puisse te voir d'abord. Mm. Après le reste, ça va venir. Je ne suis mhm. pas pressé. Et Après, c'est un rêve de tout un footballeur de jouer, de mm. pouvoir défendre son pays. Et c'est vrai que c'est dans un petit coin dans ma tête. Ouais, sûr. Mais j'essaie de travailler d'abord euh, à être Marseille, être performant ici. Euh, ouais. Après, le reste, ça va venir. Ouais, mais c'est vrai que, comme tout le monde, j'aimerais bien, bien, porter ce maillot. Bien. Alors, euh, Pape Daouda, justement, parlons de ce maillot, ce qui nous de, permet de faire un peu la transition, euh, comme on dit, un petit langue coach, mhm. avec euh, donc football sénégalais. C'est vrai qu'on a eu une équipe olympique, des Jeux olympiques de Londres, nous avons quand même réussi, nous avons quart de finale. bon derrière euh, il y a cette élimination ci CAN 2013 bi yow nan nga gisee doxinu football sénégalais par rapport ak potentiel bi ñu am ak résultat yi ñu am est-ce que yaakaar nga ni méngoo na. d'abord man lu ma ci am lu may wax mooy ne man je vois que ni déjà football sénégalais bi mhm. parce que dañu xaw a yàkkamti parce que déjà comme ni nga ko waxee léegi nii. yaay une équipe olympique boo xamante ne ni def nañ ay jaloore noonu laa ko mën a waxee ci jeux olympiques yi mm. après aussi équipe A bi aussi gis na contre Côte d'Ivoire que ni qualifié wuñu et tout mm. mais ça veut pas dire que ni dañuy jël lépp loo xam dañuy jël lépp li ñu waroon li ñu defoon jël ko sànni mm-hmm. tamit dañu war a segg li baax ñu téye li bon ñu defaraat mm. mais je vois que ni football bi stable amul benn entraîneur bu mën a yàgg ci bopp bi mm-hmm. amul tamit euh, lépp dafa bëri coow parce que tamit comme euh, ñun sénégalais dañu tàmm benn côté dañuy wax rek. te tamit ñun dañu war a xam ne moment bi ñuy waxee am na ñeneen ñoo xam ne ñuy liggéey. donc waxuma la ñëpp. waxuma donc visé ma kenn waxuma kenn mais lu ma bëgg wax foofu mooy ne que tey football dafa toll foo xamante ni liggéey moo ko yor du wax. aussi tamit dafa laaj benn stabilité parce que tamit Sénégal làmb mooy suñu cosaan comme ni ñu koy waxee tey. mais football lu mu mun a dajale amul beneen sport bu ko mun a dajale. donc li ñu war a def mooy lan liggéey mm-hmm. aussi. ñaanal tamit ñi nga xamante ne ni ñoo nekk ci équipe national bi man su may moroom ak ñeneen ak ñeneen jéem leen jàppale aussi. Mm-hmm. yàlla mu ñu boole xol yi. boole lépp aussi yàlla mu ñu jàppale. alors Pape euh, ñu jeexal peut-être ci euh, say rapport ak euh, sa mbokku sénégalais yi olympique de Marseille donc yan genre nga am ak sa mbokku sénégalais ak africain en général. man damay def comme li ma leen wax que ça soit muy Ibou ak Mamar comme ni nga leen waxee nii. ñoom mhm. suma ay rakk lañu. Mhm. ñu ngi ci centre formation bi. ñu ngi ci yoon bi aussi. Mhm. tey jii man bi ma ñëwee fii aussi dama fi fekkoon ay suma ay mag. ku ci mel ni ay ñoom Leyti. ay maam Ndiaye ñeneen ak ñeneen. donc dañ ma tegoon ci yoon. di ma wax bàyyi lii defal lii man tamit noonu laa mun a nekkee ak ñoom parce que tamit kenn xamul tey ñun ñëpp ñoo yem bu xamoon fan la ak fan la pumu dañuy ñëw rek toog. mais xamuñu yàlla moo xam. donc lu ñu mun a def aussi mooy jàppale leen. et ci kaw loolu aussi man damay sant yàlla parce que bi ma ñëwee aussi fekk naa fi ay mag yoo xamante ne ni comme culture bi nga ñëw di wax nii léegi. tey du rus di ko répété. tey su dul woon moom dina am ay dégâts yu bëri yoo xam ne dina ko def si suma àdduna dama koy sant di ko gërëm ci loolu bu baax a baax tax na tamit aussi ma mun a sigi mun a xool parce que comme ni ñu koy waxee ci olof mag dina toog gis loo xam ne xale day taxaw du ko gis bon yàlla may na ma teey boo xam ne mun naa ko dégg aussi mu may digal lu baax ma koy sant yàlla tey tamit noonu laa bugg tamit nekkee ak suma rakk yooyu di leen ñaanal yàlla ñun fépp ñu egg ñoom yal na leen fay yàlla ëppal lu raw loolu li nga xamante ne muy man di ñoom ak képp kuy sénégalais kuy football tamit. Mm. yàlla may ñu loo xam ne nii sut na suñu njot très bien alors naka sa dund Marseille ak euh, nan nga fi toogee dafa mel ni am nga soxna am nga sax bébé yi pare donc ñu lay euh, félicité ci loolu. mais sa dund ci Marseille aussi euh, nan la nekkee nan nga fi dundee. waaw su ma dund nag yomb na parce que comme li may wax toujours. Mm-hmm. man du ma génn lu bëri. parce que mm-hmm. aussi noonu laa yaroo. Mm-hmm. comme ni ma koy waxee ni donc su ma jógee entraînement man suma jabar suma doom ak sama yenn xarit ñooy nekk fii aussi toog mm. waxtaan jouer play <laughs> waxtaan fàttaliku tuuti dëkk ba des fois suma rakk bi football Nice aussi mm. Pa Moussa ma koy nuyuwaale tamit mm. ñëw fi aussi ñu toog waxtaan mm-hmm. comme Nice Marseille sorewul mm-hmm. yaakaar naa ni loolu la mais génn bi bëriwul ñu ëpp lu ñuy def mooy toog waxtaan weccoo xalaat. merci Pape euh, wax ji rafet na donc euh, je pense que c'est un footballeur mais aussi un sage à la fois tiens il devrait même nous inspirer merci beaucoup et bonne continuation. merci beaucoup Voilà, je vous fais la totale après donc le maillot, à présent la casquette, hein, tant pis pour les Parisiens, mais nous sommes à Marseille, honneur aux Olympiens. Alors, nous ne saurons terminer cette émission sans remercier et inviter euh, deux icônes, on va dire, de la communauté sénégalaise, Pape et Map Koumba, qui nous auront accompagnés tout au long de la semaine et qui adorent également le foot, justement, puisqu'aujourd'hui, nous avons évoqué et parlé principalement de l'Olympique de Marseille. Ils ont certainement des choses à dire. Alors je vais euh, de ce pas proposer à Makumba de nous rejoindre sur ce plateau. Nous sommes, je pense, au niveau de la Castellane. Makumba, bonsoir. Mafatou, bonsoir. Comment ça va Ça va et toi, bien bah, Je ne sais pas, peut-être que je Wolof parce que, quand même, les euh, Sénégalais, ils sont Marseille, mais ils sont racines. Mais nous avons vite fait, rapidement. Place du place Castellane, mm -hmm. dans le 6e arrondissement de Marseille. Mm -hmm. Donc, euh, il est dans le cœur de Marseille. Comme nous l'avons dit, il est Marseille. Marseille. club bi euh, joueur africain yi nga xam ne marqué nañ ko. joueur yi yi ma yi ma gën a marqué mooy ku mel na Boubacar Sarr Lokot mais bi muy bi muy jeexal laa fi ñëw parce que bi muy jeexal laa fi ak si 86 mu woon Martigues. Hmm. après Abdoulaye Diallo laa fekk si ak Abdourahmane Fall Pape Fall. ok bi nekk Caen. ok la laa fekk si. donc euh, ñu nekk suma xarit aussi ah. voilà ma laay ba léegi dañuy gisee. Hmm. souvent on s'appelle au téléphone. très bien léegi nag euh, ci wàllu euh, ferveur bi am ci club bi euh, nit ñi bëgg a gagné bon ñu gis ne aussi actuellement am na ay africains aussi yu fi nekk yu fi def liggéey bu rafet bu bu am solo. waaw ci africains yi fi nekk yaakaar naa ni en dehors de Abdoulaye Diallo bi nga xam ne moom. presque fii la passé jeunesse am yëpp à Marseille à part bi mu jógee Pikine. Mhm. gars yi recruté ko mu jógee Sénégal directement ñu fi dar centre formation. Euh, mën naa ni ku mel ne Souleymane Diawara. Mm. moom tam mi ngi marqué le Massi parce que jël na fi ay titres yu bare bare. Mm. xoolee coupe de la ligue jël na fi yu bare bare te ba pare avec son expérience. Mm. yaakaar naa ni ku marqué ku ma ku ma marqué la aussi si si Marseille. ci club bi ci club bi waaw. très bien ku mel ni Mamadou Niang. Mamadou Niang oui Mamadou Niang mën nañu ko wax aussi. mën nañ ko citer. xaw naa ko fàtte sax mais heureusement yaa ma koy fàttali. mën nañ ko fàttaliku aussi. mais ku mel na na Souleymane Diawara parce que moom moo resté. ok Mamadou Niang dafa dem. Mamadou Niang euh, euh, kii ba léegi titre yi mu fi yi mu fi gagné. Euh, Mamadou Niang gagné wu ko. gagné wu ko fii d'accord loolu moo tax. Souleymane Diawara si africain yi gën a marqué Marseille si lay bokk. dana resté si moom. très bien Macoumba vraiment merci beaucoup. pour tout jaa ni ñu dalalee ak. ni mu fi fekkee tout. bon dañuy dalal sarak aussi euh, muy Pape Pape tamit ñu wax ko mu jege si euh, Pape moom nga xam ne aussi euh, waa Sénégal ràññee nañ ko ndax se le correspondant de la RFM chaque dimanche ñu dégg un peu nga nekk ak Laye di ñu raconter un peu les péripéties et parfois aussi les bonheurs de Marseille ah de l'Olympique de Marseille di club boo xam ne club bu mag la yow yan africain ñoo la ci marqué. maa ngi ñëw France en 89. bi mhm. ma ñëwee li ma jëkk marqué ci Marseille mooy stade Vélodrome déjà. parce que comme fan Platini laa woon. Mhm. dama ñëw ma gis euh, Platini. Mhm. muy seetaan si Marseille Auxerre. booba Marseille Auxerre la temps Basile Boli ak euh, William Pougny ñoo doon jouer ak su. Euh, Auxerre. loolu itam lu ma marqué la. africain yi ma gën marqué ci euh, Marseille. Mhm. mooy Abedi Pelé. waaw ah, kooku moom dëgg la. Abedi Pelé moo ma gën marqué. Mhm. vraiment mais en général ki ma gën marqué marqué mooy Enzo Francisco Li. très parce que j'ai j'en ai rêvé avec lui. parce que bu ma nekkee Saint-Louis. Mhm. j'aimais bien le beau euh, football bu rafet. le beau mais bi ma ñëwee moom ma gis que muy football j'étais sidéré. Euh, tey Marseille dafa nekk club boo xam ne chaque année dañu war a presque di gagner titre mais mu am concurrent bu doy waar di PSG ak ay Qatar yi ñëw def ci xaalis recruter ay joueurs yu mag est-ce que tey Marseille euh, loolu nan lañ ko dundee ñoom les Marseillais est-ce que c'est pas frustrant non c'est lu lu lu naqadi la parce que vécu bi ma am à Marseille c'était au grand temps de l'Olympique de Marseille avec Bernard Tapie comme je l'ai cité tout à l'heure Chris Waddle Jean-Pierre Papin Abedi Pelé Basile Boli Jocelyn Angloma ah bon c'était mi actuellement fi ma toll nii mhm. dafa mel na ma doon dunde res après ma wàcc di lekk xëtër mais Qatar yi ñëw dafa bouleverser hiérarchie parce que le grand foot c'était à Marseille maintenant ça ça s'est déplacé à Paris mais engouement bi mu war am autour d'une équipe okay. du ko am parce que à Paris ils sont ils aiment le foot bien, bien mais sûr. un peu par rapport ferveur bi football di demander autour euh, autour de euh, bon Pape euh, merci beaucoup kontaan nañ trop comme on dit ci accueil bi et vraiment la manière dont vous nous avez accompagnés durant toute cette semaine alors euh, voilà un petit sec qui certainement est en devenir peut-être on espère que ce sera peut-être le futur Niang ou le futur Ayou, on lui le souhaite et bien sûr Makumba qui va nous rejoindre et c'est sur ces mots bien sûr que nous allons euh, nous quitter. Vous remercier, vous aussi, amis téléspectateurs. Vous rappelez que Marseille est une belle ville. Je vous recommande d'y venir. Comme je le dis, les gens sont chaleureux, accueillants. Et merci à Ahmed Nyan, c'est mon partenaire. Je ne dois même pas le remercier. C'est l'équipe, quoi, le duo. Donc merci à Tcheke également qui nous a assisté. Excellente soirée à tous. Euh, je sais pas, vous connaissez quelques mots Nangadef, Mangifirek, euh, <laughs> non Non, Nangadef, mais je veux pas écorcher ça, parce que déjà, j'ai mal à bien parler français. <laughs> Bah, moi, ça papa, ça mon maa ngi nuyu aussi sama xarit yi nekk Sénégal supporter Marseille yi Mackenzie Pape Samba Gueye supporter Marseille bu mag la Bobo Thiam Liberté 6 Cheikh Ba Impôts et Domaines que ce soit Grand Djibi Diagne Liberté 6 ñoom ñëpp ay supporter Marseille yu mag lañ Kara Bandian ñoom ñëpp ay supporter Marseille yu mag lañ maa leen nuyu bu baax te li wax ñu ñaanal ñu nekk comme ren mu jël championnat bi <laughs> euh, waaw pare ñu fi mu tay ñu fi mais bu soobee yàlla buñ laamee rek mën nañ ko jël waaw. Euh, euh, le jour à la vétane aussi. Kadi, euh. Khanalou. On est parti jusqu'à régional. À chaque fois, il y a le final, mais il y a le pénalty dans le game. Czekaj. donc sama papa Medina la jógee Medina Sarr même dëkk bu nekk wetu Xombol. suma yaay euh, Ndol Ndol. donc ma leen di nuyu aussi ñoom ñëpp. di leen wax ne leen ngi sant yàlla bu baax. aussi ñaan aussi ñoo ngi koy gis. Euh, kii wala taxawal ni noonu ni demal ni à gauche la à droite na ëpp na tuuti. vous allez découvrir un centre de formation de haut niveau alors vestiaire euh, club de réfectionnement bla bla bla bla.